بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi leen di dalal jàmm ci suufu keppaaru Ramadan tey jii di suñu fukkee lub daje ak ñeent ci suñu waxtaan bi ñu dëppee sous l'ombre du Ramadan muy nekk ci weeru koor bu barkeel bu tedd bi bés bu nekk ñu daje fu siini nafar benn bind ci suñu wàllu diini danaa ci fàttali it ne ay jullit seen jataay yépp noonu la war a mel yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daana wax ne jullit ñi day bis bu ñu dajee wax seeni soxlay àdduna yépp ba jóge fa kenn tudd fa yàlla kenn julliwu fa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daje boobee ak perta nga lay doon ci ñoom yowmal qiyaama kon incha allah mbokk suñu dajab tey bii ñu ngi fas yéene nag mottali la nga xamee ne nii moom mooy juróom benneelu ponk ca la nga xam ne mooy ponki ngëm yi mbokk jullit day sunu boroom mas naa yónni jibril alayhi salaam mu wàcc ca yonentam ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk ay saxaabaam ñu ngi ko wër jibril ñëw sës ay óomam ci moom ci ay óomam teg ay loxoom ci ay poojam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko waaw muhammad ngëm moom mooy lan mi ngi noonu ngëm moom mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa di koy tontu ne ko an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wa tu'mina bil qadari xayrihi wa sharri ngëm daal mooy nga gëm yàlla jalla wa ala ca may gëm wéetaayam ci ne moom dong ngay yàlla biñ yeeyoo ñu jaamu gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm ay yonentam gëm yowmal qiyaama mbokk yéen ñi ñëw ci keppaar gi ba koor gi commencé ba tey xam nga ne juróomi ponk yooyu moom yépp waxtaan nañ ca ab waxtaan doonte ne peegu ko ak peeg waaye waxoon nañ ca la munte ñàkk tey nag ñu ñëw ci bi ci mujj bi ci mujj mooy gëm dogal li neex nga xam ne yàlla ko dogal li naqar it nga xam ne yàlla moo ko dogal doomu aadama bi du mën a gëm lu dul ne day matal juróom benneelu ponk boobu ñu dog koo tuddee la nga xam ne nii moom mooy ab jullit mooy yow jullit da ngay gëm ne adduna bii ñu nekk mboolem loo xamee ne nii mi ngi fi yëngu mboolem loo xam ne li fi am la yàlla dogal ak amam yàlla subhanahu wa taala it moo ko dogalal la nga xam ne nii ca la nekke loolu na doon asamaan yi la suuf yi la biddiw yi la ngelaw yi la lum mën a doon loolu moo tax ba suñu boroom subhanahu wa taala dañuy wax ni inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi lleyli wannahaar la aayaatin li ulil albaab alladina yazkuruuna allaha qiyaaman wa qucuudan wa ala junubihim rabbana maa xalaqta haada baatila subhaanaka faqina azaaba annaar suñu boroom nee na ni ma bindee asamaan yi ak suuf ni ma wuutalee guddi yi ak bëccëg ay kawtéef mi ngi ci ñeel boroom xel yu mag yi ñi nga xam ne buñ taxawee ñi ngi fàttelu ko yàlla bu ñu tëddee ñi ngi fàttelu ko yàlla bu ñu toogee ñi ngi fàttelu ko yàlla lépp lu ñu gis ci kaw asamaan yi ak suuf ñu ne ah yàlla lii day bindoo ko ci neen sellañ yal na la yal na ñu musal ci mbëggalum sawara ay mbokk mi ngi noonu génnal nga xool jant bi yàlla ko bind dogalal ko ay yoonam mi ngi noonu weer wi yàlla ko bind dogalal ko aw yoonam wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdiru al aziz al alim jant baa ngi noonu di daw di nekk ci orbitam lii mooy nattuwaay ki not lépp ca xam wal qamara qaddarnaahu manazila xatta aada kal urjuuni al qadim weer waa ngi noonu suñ borom mu ne maa ko dogalal yoon ya muy war a jaar muy jóg di màgg gannaaw ba di wàññeeku ba mel ni a la nga xam ne mooy carab tàndarma bu lax lii yàlla wax ci jant bi ak weer loolu it la wax ca la nga xamee ni ni moom mooy wa tasrifi riyaaxi lii di ngelaw yay daw borom bi nee na it lay daw ca gaal ya ca biir géej ga amul lenn loo xamee ni nii am na ci kaw suuf lu dul ne suñu borom yàlla jëll wa ala mooy kaka kaka bind lu dul suñu borom yàlla subhanahu wa taala mooy ka nga xamee ne ni moo ko dogal mi ngi noonu jëll wa ala su dee dañoo delloo ca suratul an'am suñu borom mi ngi ñu fay wax ne wa indahu mafatihul ghaybi laa ya'lamuha illa huwa sa borom yàlla day moo yor caabi kumpa kenn xamul kumpa ku dul moom wa yaalamu ma fi lbarri walbahr yàlla moom xam ne lépp luy dox ci jéeri ji ak lépp luy dox ci géej ga wa ma tasqutu min waraqatin illa yaalamuha amul benn xob buy wadde ci benn garab buy wadde ci benn gàncax buy wadde ci benn fleur lu dul yàlla xam na xob boobee ah ak waddam gannaaw ba it wala xabbatin fi zulumaati l ard amul benn pepp bu ñuy dugal ci lëndëmi suuf mi ngi noonu wala rotbin wala yaabisin amul lenn luy wow amul lenn luy tooy ci ay fruit ci ay gàncax ci ay branche illa fi kitaabin mubin lu dul lépp nekkoon na ci benn téere boo xam ne nii téere bu leer la ay kon xoolal mbokk xoolal garab gi ngay romb ci sa buntu kër wala mbedd mi suñu borom yàlla dogaloon na garab googee ba muy nekk pepp ci biir suuf ba war a génn ñaata branche ñoo ci war a génne ñaata xob ñoo ci war a génne année bu nekk xob boobee kañ lay màgg kañ lay mat kañ lay wow ak kañ lay wadd loolu lépp suñu borom yàlla nee na bindoon na ko ci ab téereem dogaloon na ko lépp mooy ka nga xam ne mooy borom kàttan gi mbokk dogal mi ngi noonu suñu borom yàlla mi ngi ñuy wax ni wa in min cheyin illa indana xazainuhu wa ma nunaziluhu illa bi qadarin maalum amul lenn lu mën a doon lu dul ñun ñoo yor magasin mi ya ñoo koy wàcce ci lim bu ñu neex moo wax la rek misaal ci li nga xam ne mooy coronavirus bi nga xam ne moo sabab sama waxtaan ak yéen tey mbokk ñooñu ay mbindaafu na yàlla lañu yàlla waxoon nañu ko démb falaa uqsimu bi ma tubsiruun wa ma laa tubsiruun maa ngi waat ci li nga xam ne yéen a ngi koy gis maa ngi waat ci li nga xam ne gisu leen ko ca loolu mooy virus ya microbe ya yooyu yépp armée la ci armée yi borom bi borom bi nee na moo koy wàcce ci lim bu ko neex loole ñu war ci bàyyi xel bu baax nga xam ne loolu kattanu yàlla rek la te jii bu dee ne scientifique yi dem nañ ba gis ne ki am a contact nit ko am corona ba benn corona teqe ko ca balaa def vingt quatre heures dana jurante ba mat dix milliards de corona mbokk loolu ku ne xam ne ne ne mbir la moo xam ne dépassé na xelu doomu aadama kattan la goo xam ne kattanu yàlla rek la nan la virus bu ñàkk solo boobu nga xam ne da nga koy multiplier des millions pour gis ko nan la mën a am kattanu multiplier boppam des milliards de fois loolee mbokk mooy la yàlla wax lu mën a doon ñoo koy wàcce ca kem bu ñu neex mbokk suñu borom jalla wa ala lu mel nii it la ñuy wax ci ni ma asaaba min musibatin fi l ard wala fi anfusikum illa fi kitaabin min qabli an nabara'aha inna zalika ala allahi yasir xam leen ni amul natt buy dal ci kaw suuf tremblement de terre la taw la bu yàq lu bari alal ju yàqu la boo demee ca bakkan ya amul kuy feebar amul kuy accidenté lu dul yàlla dogaloon na ko bindoon na ko ci ab téeréem moom mi nga xam ne moom moom nguuruk asamaanu suuf dara du fi dox lu dul loo xam ne nii da koo neex dara du fi dox loo xam ne nii da koy rëcc lépp xam na ko dogal na ko bind na ko mi ngi noonu jàll wa ala borom boobu it ci loolu la ñuy waxe ba tey ne xam leen ni wa ma tashaa'uuna illa an yashaa allahu rabbul alamin amul lenn loo xam ne dana leen neex ngeen def ko xanaa lu dul daa neex yàlla waaye doomu aadama moom la nga man kay muy jóg sabablu waaye ndax sabablu dana yegg déedéet amul looy sabablu lu baax mu yegg lu dul daa neex yàlla amul looy sabablu mu lu bon mu yegg lu dul daa neex yàlla lii mbokk jullit da ko war a suuraale ca la nga xame ne nii moom mooy ponk ngëm mbokk ponk ngëm googee doomu aadama bi bu ñu xoolee la ko ca gën a concerné suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne kenn ci yéen day su dee ne dafa nekk ci biiru yaayam ba am fa la nga xame ne nii mooy étape yi muy jaar nekk nutfa alaqa mudga yàlla dana yónni benn malaaka malaaka bi ñëw ëf ci moom benn ruux gannaaw ba yàlla sant malaaka bi mu bind la nga xamee ne mooy wërsëgam bind la nga xam ne mooy jëfam bind ne day texe wala day texee bi lii lépp mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu ko ne yàlla moom ku nekk xam na lan mooy nar a nekk sa jëf avant nga koy jëf ca xam na it la ngay bëgg nar koo jëf la cay sotti ci ngërëmam xam na ko jalla wa ala mbokk ci wàll googu ba tey buñ ko xoolee dana tax ba suñu boroom nañu li kay laa taasaw ala ma faatakum wala tafrahu bi ma aataakum wallahu la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur yow jullit gëm gi ngay gëm ne lii ma dal ci nattukat mënuma woon a ñàkk a dal loolu day tax ba yow doo ànd ak désespoir ñikki goo xam ne nii dana dem ba dugal la ci musiba bal da ngay delloo wat mbir yépp yàlla xam ne ah yàlla mi dogal lii mu naqari ma day mën na am am na beneen dogalam bu neex boo xam ne bu ñëwee dana ma fàtteloo lii ma naqari waaye it la nga xam ne am nga ko ci xéewalit doo ko bàkkoo da ngay xam ne lii yàlla moo ko dogal ca bu neexuloon yàlla it loolee du mën a nekk loo xam ne nii luy am la mukk ci àdduna loolu moo tax suñu borom di ñu nettali la nga xamee ne nii moom mooy kaddu jullit ñi heure bu dee nattu dal na seen kaw lu ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun dey ay jaami yàlla lañu ñun dey ci yàlla jalla wa ala la ñuy dellu ca mooy ay jaami yàlla lañu mooy yàllay dogal ci ñun lu ko neex waaw léegi nag yow ngay moomeelu yàlla yàlla dogal ci yow la ko neex ba pare yow nga nara nag sab xol nara yàqu ba ngay dem ci lu naqari yàlla loolee mbokk ak ndaf du paase loolu looloo tax jullit moom day dellu ci yàlla sant yàlla jalla wa ala gëm ne lii mooy dogalu yàlla comme nañu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nettalee ne jaam bi bu yàlla jëlee doomam dana laaj malaaka yi jël ngeen sama doomu jaam bi mu ne waaw jël nañ ko de jël ngeen meññetu xolom mu ne waaw jël nañ ko de mu ne waaw bi doom ji faatoo lu mu wax ñu naa moom day xamidaka wastarjaa moom day dalaa sant dellu ci yow na am jàmm bi yàlla la wërsëgaloon doom ana ñaata ci ay jaam amuñu doom doom boobee yàlla jël na ko jël gëm ko jël pay gam lay xaar ci àllaaxira kenn xamul nu mu tolloo moo tax mu ne sant na la wax nañ it dellu ci yow ci ñoom gëm ne ne yaa leen moom loolu neex ngay def wax wastarjaa wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yonent bi alayhi salaam ne yàlla ne malaaka yi tabaxal leen ko kërug cant ci aljanna lii mbokk day wone ki gëm dogal ak ki gëmul dogal xoolal seen différence mbokk saxaabatul kiram lu tax bañ jógee di xeex suñu borom yàlla ne su ngeen mat matee téeméer da ngeen dàq junni lan moo ko waral mooy saxaaba yi ñoom bi ñuy dem dañoo gëm ne xeex bi ñuy xeex du seen xeex ñoom dañuy sabablu rek waaye dogalu yàlla la buñ daan dem lañuy wax lan yusiibanaa illa ma kataba allahu lana huwa mawlaana wa ala allahi falyatawakkalil muminuun dara duñu dal lu dul yàlla dogal mooy suñu péete ca ci yàlla rek la julli di wékku looloo tax mbokk buñ masaan dajeeg yéeféer yi nga xam ne dañoo sukkandiku ci seen kàttan su boobaa yàlla subhanahu wa taala fokk mu dimbali jullit ñi jullit ñi mas nañoo tarxis tarxis gu mel noonu masalan yonent bi daa ubbi makka tuubeen yépp dugg si mu am benn armée bu mag bu mat fukki junni ak ñaar ñu jóge fa dem nag di war a xeex ak waa taif taif la fa nekkoon ay ñetti junni nit lañu gaa yi ne ah ñii de buñ demee ab lanc rek lañ leen di def jàll fàtte kàttanu yàlla suñu borom yàlla lan la lan la ci teg wa yowma xunaynin id ajabatkum kasratukum falam tugni ankum min allahi shay'a wa daqat alaykum al ardu bima raxubat summa wallaytum mudbirin ba jullit ñi demee ba fàtte kàttanu yàlla ak i dogalam sukkandiku ci seen kàttan yàlla dafa xelal waa taayif ñu piège leen ci diggante ñaari montagne fitti di dal ci kaw jullit ñi ñoom ñépp ñu daw tasaaroo ba yàlla xamal leen ne du kat seen kàttan mooy xeex gannaaw ba nag yàlla doog a indi ndimbalam summa anzala allahu sakinatahu ala rasulihi wa bilmuminin wa anzala junudan lam tarwaha wa azaba lazina kafaru suñu borom yàlla nag ba mu demee ba yar jullit ñi ba xamal leen ne du seen kattan mooy xeex mu wàcce ak dalam ci yonente bi wàcce waat ko ci jullit ñi yonente bi alayhi salaam na abbas wooteel abbas taxaw yuuxu woote ñoom ñëpp ñu dellu si waat ca la leen yàlla doog a dimbali loolee mbokk kon ngeen gis gëm dogalu yàlla fan la mën a yóbbu doomu aadama bi looloo tax xatta avant dini lislaam xoolal keroog taaluuta bi muy génn ci armée boo xam ne yonent yàlla daawuda ña nga fa woon ñu dem di xeex ak waa jaaluut jaaluut ñoo leen ëpp armée foofu ñu dem ba ci yoon bi taaluuta la ëppoon ci armeem naan ca dex ga dëpp bàyyi ko mu des lim bu néew loolee am ñu xaw a saalit naan ah tey de nu ñu mën a dékkoo jaaluuta waaye boroom xam-xam ya ca ñoom lu ñu wax kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kasiratan bi izni llah wallahu ma assabirin déedéet nañ dem du suñu kattan mooy xeex ana ñaata ci histoire la benn lim bu ndaw dajeeg benn lim bu mag daa di koy re jàppante ak ñoom yàlla dimbali leen ñu gañe leen mbokk lii moo taxoon saxaabatul kiram ubbi goxi suuf mooy dañoo gëmoon la nga xam ne ni mooy dogalu yàlla ca mooy dem ci armée ba taxute de toog ci kër ga taxute de yéeféer yi dañ daan wax seen mbokk yi dem ca xeex ba law kaanu indana ma maatu ma qutilu ñoo ko def bu ñu toppoon toog ah kon de duñu leen rey suñu borom ne waaw fadra'u an anfusikumul mawt yéen ñi ne demu leen ca guerre ba du ngeen dee fexe leen ba bu leen dee rek waaye dee moom bu ñëwee même bu la fekkoon fii burujim mushayyada pale boo xam ne ni dañ ko fortifié bu sa dee jotee moom fokk da nga dem daje ji ak sa dee mbokk lii moom la doomu aadama bi di gëm mu dimbali ko lool ci àddunaam xam ne sama waru gar mooy naa sabablu waaye li ci des moom dama koy bàyyee ak sama borom jalla wa ala yonent bi alayhi salaam formation boobu la doon defal la nga xam ne ni mooy ndaw saaba ya mooy nañ ci jël kenn di abdullah ibnu mas'ud di di abdullah ibnu abbas abdullah ibnu abbas yonent bi alayhi salaam dana ne ko yaa gulaam ay yow xale bi te mooy boobu sax majeuragul inni uallimuka kalimaat kaay ma jàngal la ay kàddu ihfazillaha yaxfazka wattul yàlla yàlla wattu la ihfazillaha tajidhu tujahak wattul yàlla nga fekk mi ngi taxaw sa kanam di li dimbali ci loo mën a dugg ni ñuy wattoo yàlla mooy def ay ndigalam bàyyi ay tereem mu ne ko ida saalta fasalillah booy ñaan bul ñaan kudul yàlla wa ida staanta fastain billah booy dimini ko bul dimini ko lu dul ci yàlla واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء xamal ne mboolem xeet yi yépp buñ daje woon bëgg laa jëriñ ci dara mi ngi noonu lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu qad katabahu llahu lak duñ la mën a jëriñ mukk lu dul mbir boo xam ne yàlla bindoon ne ne lii moom danga ci jot waaye tamit wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in bu doon mbooloo yépp dañoo daje ngir bëgg laa lor ci dara lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu llahu alayk duñ la mën a lor lu dul ci mbir boo xam ne yàlla dogaloon ne fokk mu dal la ne ko ay xamal ne rufi'at al aqlaam xalima ye yàlla dun bind ay dogal yëkkati nañ ko wa jaffati suxuf këyit yiñ dun bind wow na kon dara du mën a am lu dul la nga xam ne moom mooy la neex yàlla subhanahu wa ta'ala mbokk julit lii mooy gëm bi nga xam ne nii julit da ko war a gëm la nga xame ne nii moom mooy dogali suñu borom bi subhanahu wa taala looloo tax mu am benn kaddu gu mag goo xam ne julit da ko war a gànnaayoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na abdallah ibnu qays ala uallimuka kalim kalimatan hiya min kunuuzil janna laa hawla wala quwwata illa billah kaay ma jàngal la kàddu goo xam ne bokk na ci denc ajjana yi mooy kàddu laa hawla wala quwwata illa billah amul kenn ku am pexe bu ko mën a musal amul kenn ku am pexe bu ko mën a yóbbu ci lu koy jëriñ lu dul ci ndimbalu yàlla jalla wa ala laa hawla wala quwwata illa billah looloo tax ba mbokk julit heure boo jógee jëm ci mbir bu mu mën a doon la ngay jiital mooy laa xawla wala quwwata illa billah kenn amul pexe kàttan ku dul yàlla lépp lu la ca dal nga ne ma mu ne nga ne qaddara allah wa ma shaa faal lii mooy li neex yàlla yàlla la ko neex lay def waaye yow fekk def nga la nga xam ne mooy sa warugar ba pare mbokk gëm dogal indi na benn pas-pas boo xamee ni nii ci jullit ñi teqale leen ci pas-pas am na ay doomu aadama yoo xam ne dañoo jël ay yenn texte ci alquran ñu jàpp ne doomu aadama bi lépp moo koy def yàlla li mu lay dogalal mooy la nga xam ne rek yaa ko def mbokk loolu njuumte la ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo taral ci diine ji ñoo taral ci diine ji ñu tudd leen al qadriya nga xam ne dañoo weddi dogal ba képp koo xam ne nii dañoo jàpp sax ne yow def nga kabair da ngay dem ca la nga xame ne nii mooy sawara sax fa xaalidina fiiha mu am ñeneen ñu gën a bon ñooñu mooy ñan mooy ñu jàpp ni déedéet yàlla daal mooy def lépp muy almurjia ñoom yàlla mooy def lépp doomu aadama bi du responsable ci dara ñee nekk ca jàkk jay julli ñee nekk ca baar bay naan ñoom ñépp a yem ndax yàlla moo dogal ñee nekk ca jàkk ja yàlla dogal ñee nekk ca baar ba ki nga xam ne dafa fekk nit ki mu rendi ko amul benn problème ndax yàlla moo ko dogal nit ki du responsable ci dara mu ngi noonu mu sayyar yàlla rek moo koy wëlbati comme xob yi garab yi ñu leen ngelaw li di wëlbatee mbokk pas-pas boobu amul benn yonent bu ko mas a jàngale pas-pas boobu amul benn yonent bu ko mas a jàngale looloo tax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax xadis bi ma leen wax sànq ne kenn ci yéen de ci biiru yaayam la yàllay dogale texeem ak ñàkk a texeem saxaaba yi dañ ne ko waaw kon lu ñuy jëfati te ñoo toog rek xaal dogalu yàlla yeneen bi alei salaam ne leen déedéet imalu fa kullun muyassarun li ma xalaqa allahu la jëf leen kay képp kenn ci yéen day yàlla moo koy yombalal la nga xam ne ci la ko bindee xadis boobu muslim soloo na ko loolu moo tax ba yow jullit gëmal ne sa wërsëg ci loxo yàlla la nekk waaye ndax da ngay xëy rek frankulaayu sab der naan yàlla yàlla déedéet da ngay sàkku ji wërsëg gëmal ne boo feebaree ci yàlla la jóge booy wéeru ci yàlla la jóge mais ndax da ngay toog rek ne damay xaar yàlla déedéet wàllu wërsëg suñu borom moo ñu wax ne inna allahu huwa razaq zul quwati matin yàlla mooy wërsëgal borom kàttan gu mag gi waaye yàlla moomu ñuy wax muy wërsëgal moo ñuy wax ne huwa allazi jaala lakum al arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur maa leen tàggatal kaw suuf dox leen ci goxi suuf dem leen Amérique Italie ah Espagne dem leen ngeen uti wërsëg loolu muy wone ni yow gëmal ne dogal bi ci loxo yàlla la nekk waaye sabab bi sa loxo la nekk loolu it ngay déggee ne yàlla yóbbu ko ko neex aljanna yàlla yóbbu ko ko neex sawara waaye nag da ngay sabab lu dem aljana sabab lu mucc ci sawara ba baalu yàlla yi dogal ci yow loolu mbokk mooy la nga xam ne ni jullit da ko war a xam tey jii lan mooy sabab suñu waxtaanu tey jii mooy feebar bi nga xam ne yàlla nattoo nañu ko nañu delluwaat ca ki nga xamee ne nii jamono Omar ibnul Xattaab Omar daa ñëw Shaam fekk fa Shaam benn peste nekk fa xam ngeen ne information nu mu demee nii tey li xew Amérique xew Chine moog li xew fii Sénégal gi mbir mën naa xew Saalum sax une semaine doo ko yëg li xew Amérique dans les minutes nga yëg ko loolee Omar déplacé armée islamique ñu ñëw ba Syrie ba ci frontière bi ñu yónnee leen daw ne ah attention dëkk bi day peste dafay déclaré mbokk peste moo gën a garaaw corona téeméeri junni yoon peste dafay déclaré Omar dajale saxaaba yi ne ah waa léegi luy pexe luy pexe bi mu amee saxaaba yu juyoo am ñu ne ah waaye nañ dem rek am ñu ne déedéet bu ñu dem Omar ibnul Xattaab ànd ak ñi nga xam ne dañ ne bu ñu dugg ci dëkk bi nañu dellu ba ñu dugg ci dëkk bi bi ñuy dem benn saxaaba jóg na ko waaw yow amirul muminin dangay daw dogalu yàlla mu ne ko waaw waaw damay daw dogalu yàlla jëm ci dogalu yàlla nee nga yàllaay dogal lépp ñàkk dugg gi ma ñàkk ci dugg dugg ci dëkk bi damaa daw dogal yàlla waaye maa ngi jëm ci dogal yàlla ca mooy maa ngi sauver armée islamique ca la nga xamee ne nii loolu it dogalu yàlla la waa ji ne wedam xamul lu mu koy tontu far bi yàlla miy attee ay atteem bi Omar di réunion ak saxaaba yu mag yi Abdurahman ibnu Awf ma nga nekkoon ca fin armée ba bim ñuy fekk réunion bi tas waaye mënoo Omar ibnul Xattaab man day ma fekke yonent bi alayhi salaam nee na fu ngeen dégg feebar yu bon yi di épidémie ka nga xam ne da ko faa fekk bu mu génn ka nga xamee ne nag moom dugg gu fa woon bu mu fa dugg mbokk loolu bi koy yonent bi di wax mu am quatorze siècle ba ka scientifique yi demee ba prouver ko loolee mbokk yàggagul ci àdduna ca moo di ne ne épidémie fu mu am ndekete yoo te yow mën na laa dal ca xamoo ci dara xoolal corona bi ñu ne bu la dalee balaa feeñ la nga xam ne mooy wañe ne yow feebar nga lum bon bon dana am quatorze jours loolu nag la yonent bi alayhi salaam waxoon waaye lan mooy jubluwaay bi mbokk jubluwaay bi mooy da ngay gëm ne yàlla mooy tegaate feebar waaye nag sabab ba nga man ci moytu ko loolee da nga cay def sa kemtaleel kattan looloo tax mbokk jullit jël leen masque yi takk raxasu leen lépp lu ñu leen wax ne dana muccale ci corona def leen ko la ca gën a kawe mooy ñaan yàlla askar yi def leen askar yi waaye nag bu mu tax mukk nga ne def naa samay askar jël naa samay matukaay kon duma corona déedéet yàlla mooy dogal kay corona corona yàllay dogal ka cay mucc mucc waaye képp ko frenkulaayu ne man dogalu yàlla ah lu yàlla dogal mooy am jëloo benn matukaay xamoo diini def nga lu yàlla gërëmul képp koo xam ne nii def nga say matukaay ba mat sëkk nga ne ah léegi c'est fini man mucc naa déedéet def nga musiba ñu ngi ñuy wax démb rek fii ci Sénégal koo xam ne kombaam yépp mi ngi ko defoon di sensibiliser nit ñi ñu jël ay matukaay ngir mucc ci corona démb la ko yàlla faat ci corona bi loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee kon mbokk jullit corona boobu day moo sabab sama daje gi yéen tey ci keppaaru kooru gi waaye budul woon ak loolee dañ doon bàyyi ba tàkkusaan ñu daje ci néegub yàlla ba ubbi téere bi yàlla bi di ko nafar yàlla mi nga xam ne nag mooy borom corona moo ko dogal tasaare ko ci suufam si yàlla moomu jalla wa ala ñu ngi koy ñaan képp koo xam ne faat na ko ci corona bi yàlla na ko defal ak jëna muy wàccuwaayam képp koo xam ne jamono ji mi ngi tëdd ci corona yàlla na yàlla saafara ko yëkkati ko ci jàmm képp koo xamee ni nii a dafa doon koo xamee ni nii mooy ab julit la bum dalagul yal na yàlla subhanahu wa taala féewale ko ak loolee nga xamee ni nii mooy natt bu tar bii nga xam ne nii paralysé na économie bi teqale ne doomu aadama yi dem amatul dem dikkatul lii lépp dañuy won ne suuf si am na boroom du Amérique moo ko moom du Russie moo ko moom du Chine moo ko moom borom asamaan ak suuf mooy tënk waa suuf bis bu ko neexee tinki leen yal na yàlla teggil ñu musiba bi delloo ñu ca xéewal yam ñu defaloon jiitu boobee innahu ala kulli shay'in qadir wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu